wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina muhammadin almakin wa alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalib yi noo ngi leen di nuyu nuyub lislaam di sant yàlla sunu boroom di julli ci yonentem bi alayhi salaatu wasalaam di sant cheikhana alxadim di ñëwaat ak yéen ngir wéyal téere bi nga xam ne dañ ko doon firi ci wolof te mooy cheikhuna alxadim fi maqarrihi wa mamrarihi wa duyuri ci bànd bi weesu nag waxoon nañu mm, muqaddima bi ak la ko jiitu léegi nag fii ñu toll ci albaabul awal fii amaakini iqaamatihi qabla al gaybati al bahriya kon bërëb yi nga xamee ne ni sëriñ bi nekkoon na fa avant muy dem ci tukkib géej gi bunt bu njëkk bi ci loolu lay wax bërëb bi ci jiitu nag mooy Mbàkke Bawol moo tax ñu def un waaw kon ñu fàttali rek ne liñ jot indi ci ay bërëb daanaka toll na ci juróom-benn fukki bërëb ak juróom-benn 66 waaw ci liñ joto xam ci gëstu biñ def daal waaw mën na 66 bërëb xaj na nag mën na ko ëpp mën na ko yeesu waaye daal ji liñ jot gëstu daal moom mat na ko léegi nag bii mooy bi ci jiitu te mooy Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol nag bërëb la boo xam ne nii ñu ngi ko sanc ci atum tubaab 1780 tolloog 1194 ci atum julit ki ko sanc mooy euh, ñaareelu maamu Sëriñ Tuubaa ñu koy wax maam maaram di Muhammad al Kabir ci wetuk baay sëñ bi ci wetuk baayam mooy ñaareelu maamam ndax sëñ bi Maam Anta Sali moo ko jur maam Balla moo ko jur maam Balla maam maaram kon maam maam mii maamam maam maaram moo jur maam maaram moomee nag di Mouhamadou al Kabir moo ko sancoon ci at moom mu la wax waaye moom maam maaram moomu dëkk fa woon doomam ju mag ji maa ah, ki mag ciy doom di ñu ko wax Ahmad Farimata Mouhamad Farimata moom la dëkkaloon léegi nag buur buurub kajoor bi tuddoon Amaru Ngoone nga xam ne moo nekkoon buurub kajoor ak bawol ca jamono buur boobu nga xam ne yàlla dafa def mu amoon ay relation maanaam amoon na ay relation ay jëflante ak ay masla yu rafet amoon na ko daal ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi ak sëriñ yi diine yi waaw ndax da leen a fonkoon lool daa leen màggal di dékku daal ci seen côté loo xam ne xañ na ñi meloon ni moom doon ay buur ca jamono jamono daawuñu ko dékku maanaam ci sëriñ si ak borom xam-xam yi moom daal lim ci manoon a tolloore ca boobu jamono kenn mënu ko ca tolloore amar ngoone moomu nag di buur ba kajoor ak jo ak ak ca yooyu jamono moo dogaloon maam maaram foofu di mbakki bawol comme noonu ma la ko waxee waaw waaye maam maaram wax naa la ko nee naa la dëkku fa doomam ju mag la fa dëkkaloon di ahmad farid di mohamad farimata bi mu ko fa dëkkalee nag moom maam maaram dafa delluwaat fa nga xam ne fa la jóge woon te mooy jolof jolof googu nag moom maam maaram fa la nekk ba ni mu faatoo ñu denc ko fa waaw léegi nag ci bërëb boobu di Mbàkke Bawol comme noonu ma la ko waxee Mbàkke Bawol googu nag ci biir suuf Mbàkke Bawol googu am na ci fu ñuy wax xuru Mbàkke waaw xuru Mbàkke googu nag fa sëriñ bi gënee àddina moom Cheikhul Khadim ci diggante ñaari famille yoo xam ne ñëpp ay sharif lañu ñaari famille yu ñu xam ci xam-xam ak ci diine te mooy Mbàkke ak Buso baayam ak waajuróom bu jigéen ñoom ñaar ñëpp di ñu tedd ñoo xam ne seenu baax kenn du ko sikki sàkka te mooy Mamour Anta Sali ak soxna Jaaratu Buso léegi nag xew-xew bii nga xam ne amoon na ci bërëb boobu ma wax ci Mbàkke Bawol ci bërëb boobu di xuru Mbàkke nga xam ne xew-xew la bu dugg ci histoire te mooy gane ak àddina ak sëriñ bi doon lu fees del ak i kiimaan ak i ngeneel lool nag mi nga amee ñenn ñiy nattali ñenn ñi nga xam ne dañuy taarixal wax nañu ne fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu la amee woon di bisub gaaw ci atum 1853 tolloog atum 1270 ci gàddaay gi kon ñenn ñi nga xam ne dañuy nattali di histoire ñoom loolu la ñu wax teewut nag am na ñoo xam ne wuute nañ ci datu gane àddina ak sëñ bi nga xam ne ñoom dañ koy dañ koy taarixal ci atum ñaareel mi waaw xam nga 1853 laa wax léegi at ma ko ñaareel te mooy 1855 mooy boo nee 1853 54 nga ci teg muy benn 54 waaw mooy ñaareelu at ba ci gannaaw 53 euh, mooy 1855 waaw am na ñoo xam ne ci lañ koy dateel tolloog 1272 waaye lu mën a xew rek gan ak àddina si moom génnul ñaari dat yooyu ma wax. waaw ñaari dat moo wax di mille huit cent cinquante trois wala mille huit cent cinquante cinq ñaari dat yooyu moom lu ma la xew du ko génn loolu nag tax na bërëb bii di Mbàkke Bawal nga xam ne moo ëmb euh, maanaam xuru Mbàkke ci biiram la ne tax na bërëb boobu di Mbàkke Bawal euh, nekk bërëb bu am histoire nekk bërëb bu mag laal ci yoonu Murid ginnaaw sëñ bi fa la gënee àddina te waaw te li ëpp ci ak ndawam def na ko ci bërëb ba moo tax kon bërëb lay doon bu am histoire bu màgg ci yoonu murit moom Mbàkke Bawol ñaareelu bërëb bi topp ci bërëb yi sëriñ bi nekkoon mooy njakkan waaw kon boobu mooy deux mooy ñaareel bi njakkan nag bërëb la boo xam ne sëriñ bu mag bi nekkoon na fa ci njaalbeenam loolu nag buñ ko seetee mooy jamono bi nga xam ne nii ci saaxir moom sëñ bi jamono boobu la fer waaw nga xam ne moo dëppoo ak waaw nga xam ne mooy jamono bi nga xamee ne nii waajuram mu góor di Mambor Anta Sali ci la tuxoo Mbàkke Bawal ñëw ci bërëb boobu nga xam ne comme ni ma ko waxee mooy njakkan waaw jamono boobu nag mooy jamono bi sëñ bi nekkee di far ci saaxir waaw dajanteeg Mamadou Anta Sali jóge Mbàkke Bawol ñëw foofu di njakkan njakkan nag bërëb la boo xam ne nii mi mi ngi mi ngi mi ngi nekk ci soow Mbàkke Bawol diggante mu Mbàkke Bawol mi ngi toll ci vingt six kilomètres waaw vingt six kilomètres ni ñu ko waxee noonu lay toll moom sëriñ bi nag ca jamono baayam di Mamour Anta Sali da ko jëbbaloon maamam ji nga xam ne mook ki jur waajuram mu jigéen yu soxna Asawaala ñoo bokk ndey ak baay muy Tafsir Mbàkke Ndumbe Tafsir Mbàkke Ndumbe mook soxna Asawaala ñoo bokk ndey ak baay soxna Asawaala mu jur soxna Jaara mu jur sëriñ bi Tafsir Mbàkke Ndumbe moomu moom la sëñ Mor Anta Sali jébbaloon sëñ Tuubaa moom la sëñ Mor Anta Sali jébbaloon sëriñ bi moom tafsir Mbàkke Ndumbe mi it da daan def ñaare diggante Mbàkke ak Jolof la daan baagante waaw nga xam ne bu dee ci jamono yu lool li day nekk Mbàkke bu dee jamono yu nawet mu nekk euh, fa nga xam ne mooy Jolof waaye nag baagante bi muy baagante diggante Mbàkke ak Jolof yëpp day ànd ak sëñ bi ginnaaw moom la ko sëñ waroon sëli jëbbal moo tax day ànd ak sëñ bi bu nekkee Mbàkke nekk fa moom bu nekkee Jolof nekk fa ak moom kon noonu la sëriñ bi nekk tafsir Mbàkke Ndumbe boobu ba sëriñ bi mata dal am jàng tafsir daat koy dalal am jàng ci niñ ko waxee mu jàng ci moom ba mbokkal alxuraan ba xereñe ko yàlla defit ca yooyu jamono moom tafsir Mbàkke Ndumbe mu daal di génn àddina yàlla na ko yàlla yom bi mu génn àddina nag nijaayam nijaayi sëriñ bi nga xam ne moo waajuróom mu jigéen di soxna Jaara ñoo bokk ndey ak baay tudd sëriñ bu sóobee Mouhamed al bu sóob yi di nijaayi lenqam moom nag moo daal di féetewoo mbirum sëriñ bi maanaam ci di ko jàngal ndax boobu moom it yooyu jamono mi ngi woon foofu nga xam ne fi la tafsir Mbàkke Ndumbe nekk te mooy foofu nga xam ne nag mooy Jolof waaw wala Mbàkke comme da daan baagante diggante Mbàkke ak ak ak ak ak noonu ma ko waxee noonu la sëriñ bi nekkee nja ca yooyu jamono kon nja euh, ci euh, wàllu wal muridiya muridisme bërëb la bu am histoire bu am importance comme ni ma ko waxee mi ngi ci suuf Mbàkke Bawol ndax moom Mbàkke Bawol si kilomètre la comme noonu ma ko waxee waaw maanaam mi ngi mi ngi ci mi ngi ci suuf Bawol waaw kon bu soobee yàlla danañ ñëw ak yéen ci biir téere bi hmm, dana ñëw ak yéen ci waaw dana ñëw ak yéen ci mboolem bërëb yi yi nga xam ne rek bërëb bi sëriñ bi la comme noonu ma ko waxee mu sanc ko wala mu romb fa wala mu nekkoon fa nekku iqaama jabriya waaw tàmbalee ko ci fi mu gënee àddina comme niñ comme niñ ko indee muy Mbàkke Bawol googu ci xuru Mbàkke ba ci sax bërëb yi nga xam ne génn na réew mi fu mu nekku naa kii Grand Bassam ak Dahomey ba ci bërëb biñ ko mujj gisee te mooy njaareem nga xam ne am na fa diir boo xam ne amu ko ci benn bërëb ndax njaareem moom dafa yàgg am na fa nu tondo fukki at ak juróom kon incha allah ci biir téere bi danañu ñëw ak yéen ci bërëb yi yëpp kon ñaareelu bërëb bi wax nañ leen ko mooy njakkan ñu ñëw nag ci ñetteelu bërëb ci bërëb yi nga xam ne sëriñ bi nekkoon na fa foofu nag mooy Saalum bu ñëwee Saalum nag fa ñuy wax Poroxaan nga xam ne ci biir Saalum la foofee sëriñ bi nekkoon kon bunt bi ci loolu lay wax kon ñetteelu bërëb bi mooy Poroxaan ci goxub Saalum kon lu ñu xam la maanaam ñëpp ñëpp maase nañu xam rek ñëpp maase nañu xam ne mbàkki mbàkki yi moom Euh, aw askan la wala famille la boo xam ne daal ci wàllug diin rek lañ leen xamee waaw naka jekk dañoo mas di waaw ñoom seen itte jëpp mooy tasaare njàngalem lislaam ci biir réew mi waaye duñ ca yem fexe ba di tabax di créer ay jàngukaay ay daara ci biir gox yi ne ci biir réew mi yëpp loolu moom mos a doon seen ite loolu lépp nag ñoom dañ ko daan def ngir yombal yoon yi nga xam ne ci la ñuy mën a jaar ba mën a jàng ci la ñuy mën a jaar ba mën a jàngale la ñuy mën a jaar ba mën a former mbooloo moo xam ne nii mbooloom lislaam lay doon dëkk ci biir réew mi di dund seen lislaam ci jàmm di dund seen lislaam ci jàmm loolu mooy li nga xamee ne nii moo mës a nekk seen ite ñoom fami Mbakke jamono bi nga xam ne nag ñi ngi ci lii ñoom fami Mbakke ca yooyu jamono am na ñeneen ñoo xam ne nag maanaay ay lañu waaw euh, doonuñu ñu gëm lislaam ñoom ñi ngi woon ci beneen côté bi am nag ak xat ci euh, fami Mbakke ak ci rôle bi nga xam ne ñi ngi koy suyee ci biir mbooloo mi te mooy di defar nit ñi di leen def nit niti diine ñoom ceddo yi nga xam ne gëmuñu lislaam dañoo amoon ak xat ci mbàkki euh, mbàkki yi ak lu baax loolu nga xam ne ñi ngi ci woon di ko def loolu nag tax na ñu tàmbali nag di leen xool bëtub di leen xeeb daal waaw men daal dañuy xaw a xeeb li ñuy def waaw ñoom mbàkki mbàkki yi seen jëm boppit ak famille ñu baax ñooñu ñu leen ñu ñu maanaam ñu leen di xool bët bëtub bëtub di leen xeeb waaw ñàkk ñàkk leen a nawloo daal waaw ñàkk leen a nawloo su fekkoon ne sax dañ caa dañoo yem ci loolu nga ne waaw waaye yemuñ ca dañoo dañoo dañoo tàmbali sax ñoom catu yi jëfandikoo doole maanaam di leen contre di leen fexel waaw loolu lañ doon def léegi nag ci jamono bii nga xam ne nii ci la lii amee jamono boobu nag lu bari ci ñi nga xamee ne xaj na santuñu Mbàkke waaye ci famille diine famille l'islam lu baax ci lañu nekkoon ak mbooloo yañ ko àndaloon ñoom ñëpp dañoo tàmbalee am jafe-jafe waaw ndax ñii ñu ngi leen di jàpp di leen not di leen rey waaw ñu ñoom daal ñi nga woon taal maanaam ci danse ju metti te dara sababu ko dul rek ñaari doole yi nga xam ne nii ñoo taxaw leen contre te mooy al istimaar mooy colonisation bi ak buur yi fi ne yi nga xam ne ñoo ñoo fi nekkoon to te doonuñu ay jullit doon mën a comme ay ceddo ak yu mel noonu nga xam daal doonuñu woon daal maa ñu baax waaw kon seen jafe-jafe bépp ci ñaari côté yooyu la doon bàyyi ko kon ñaari ñooñu di istimaar bi ak ñi fi nekkoon doon ay buur yoo xam ne duñ ay buuru jullit ñoo ñoo doonoon ñaari noon yi nga xam ne noon yu dansé lañu nga xam ne boo xoolee ci seeni loxo ñoom diggante istimar te mooy istimar mm, di tubaab yi fi newoon ak buur yi ci seeni loxo ci la lu bari ci ñi ma la wax fii doon ay fa ci seen loxo maanaam ci lañu ci lañu ci lañu jaare euh, génn àddina te ñoom fekk bu fekkoon sax dañoo def dara nga ne waaw waaye amul dara luñ def waaw defuñu dara lu dul lañu ñu war a def rek lañ def te mooy ne ci lu baax di teg nit ñi ci lu baax tax na ñu bari daat cay faatu waaw ñoo xam ne ay am na ci ñoo xam ne ay jihaadkat la ñu woon doon ay jàmbaar waaw nga xam ne dañ daan dañ daan jihaad ci tuur lislaam lu mel ne Souleymane Baal Baal ak Cheikh Omar Fouti Taal ak Ahmadou Cheikh ñii boy xool bokk nañ ci ñi nga xam ne dañoo jël seen dund mm, def ko Euh, maanaam dañoo joxe seen dund daal euh, ngir lan ngir baatub yàlla di lislaam mën a taxaw doon lu ba tey bokk na ci ñii ma la wax fii euh, Maba Jaxu Ba moom nga xam ne jàmbaar la jàmbaar lislaam ju ñu xam ci jihaad jooju mu nga xam ne doon na ko def di jihaad ju tar pour contre buur yi nga xam ne ñi ngi woon ci réew mi te nekkoon ñu daan mm, def lu neex rek waaw nga xam daal doonuñu woon daal ñoo xam ne seen mbir dañ koo tënkoon ci diine rawatina ñi nga xam ne ay buur lañu woon te nekkoon ci euh, wetuk saalum gi waaw waaw noonu ma ko waxee ma maanaam saalum googu nga xam ne euh, xeex bu metti amoon na fa xeex bu xeex bu dugg ci histoire amoon na fa ci diggante moom moom Maba ak ña fa nekkoon doon doon doon ay buur waaye nag du ñoon ay buuru lislaam ay ceddo nga xam ne daal ci biir xeex boobu nga xam ne am amoon na ci diggante baba ak ñoom ci la yàlla dogale nag moom ma ba mu ñàkk ca bakkanam ma maanaam mu daat ci des mu daanoo ca waaye avant loolu di am daana leen gañe daal ay yoon yoon moom baba xeex na ak ñoom ba tàyyi di leen gañe waaw gañe leen ay yoon yoon yëmul sax ca gañe ga waaye da leen a dàq ñu bari bañ génn Saalum génn Kajoor génn Jolof ba ni yàlla dogale moom Maba mu mujj am eh, indépendante ci eh, lim nekkoon nga xam ne xam nga comme noonu ma la ko waxee eh, moom Maba dana dana dana gën a leer ci bind yi ñëw nii moom Maba mi ngi woon Saalum ci Ñooro waaye bi mu defee loolu bi mu amee taxawaay boobu ba daq ñu bari ci ñi nga xam ne ay lañu lañ woon bañ génn Kajoor génn Saalum génn Jolof moom nag dafa daal di nekk nag ñooro foofu mel ni dafa taxawal benn mamlaka waaw doomi soxna yëpp nekk fa moo tax moom Maba dafa xeroon lool nag pour aar uh, xami diine yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci biir waaw ak mbooloo yi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom moom Maba dafa amoon xirte ci man leen a aar ngir bañ ñi nga xam ne ay cedda lañu te nekkoon ci biir réew mi doon ay buur yoo xam ne tënkoon ci lislaam te buñ masaa xeex ak maba maba da leen di gane ndax boobu daa amoon doole waaye duñ mën a fayu ci maba directement waaye dañuy dem fekk ñi nga xam ne ñoog maba ñoo bokk lu ñuy dund te muy diine ñuy fay ci ci ci ñoom di leen rey di leen andil ay jafe-jafe bi maba demee ba xam loolu nag tax na mu daan ne nag dama bëgg nag famille diine yépp nag ma dajale leen Saalum ñu bokk fa nekk nga xam ne kenn du leen mën a jaaretee fenn ba di leen andil ay jafe-jafe kon loolu moo sabab moo yóbbu ñenn ñi Saalum maanaam ñu nekk foofu maanaam ca Saalum bi nga xamee ne nag mi ngi ci e, xalaat boobu pour bëgg koo amal ci ci ci nag jug dox dox bu yaatu nag ci biir réew mi pour mën a dajale doomi soxna yi yóbbu leen Saalum bi muy dox nag ba agsi nag fi nga xam nag mooy jolof nga xam ne comme ni comme ni ma ko waxee ci bunt ba la ci gannaaw jamono boobu sëriñ mbusoo bi ma nga fa sëñ mbusoo bi nga xam ne mooy nijaay sëñ bi lenqe waaw bi nekk fa moom ci la sëñ mbusoo bi nag euh, nekke foofu ma woon fa bi nga xam ne maba nag ñëw na foofu ci jolof fekk fa sëñ mbusoo bi mu daal di diisoog moom diisoog waa gox ba ngir ñu mën a am kenn koo xam ne ni daal day ànd day ak ñoom jiite leen ci wàlluk diine nga xam daal mboolem lu ñuy soxla ci wàlluk lu ñuy laaj ci diine ak yu mel noonu moom dana cay mën di tontu nga xam ne boroom xam-xam lay doon daal ñëpp dañuy maase dëppoo ci ne kii mboolem charte yi ñu soxla ci njiit ci wàlluk diine lépp mi ngi ci moom su ko defee ñu jiital ko mu ànd ak ñoom nekk seen imam daal bu ko defee di leen attel ci maandu ci wàlluk diine lépp mu teg mu teg ko ci maandu nga xam ne kon ma ba diisoo naag sëñ Bousso bi ak waa gox ba ci loolu pour ñu tànn koo xam ne nii mooy yeyoo loolu ñu jox ko bi nga xam ne yàlla def na nag ñëpp maase ne daal nañu nomee nañu nañu nañu jël sëñ Bousso bi euh, def ko mu nekk koo xam ne daal moom la jiital ci wàllu ko nga xam daal lu ñuy atte wala lu ñuy laaj ci wàllu diine ci moom lañuy ñuy dellu ñëpp maase si ne nañ jox boobu pastu sëñ Bousso bi bi loolu bi nga xam ne yàlla def na loolu am nag maanaam ci la maba nag ànd ak sëñ bu sóobe ñëw Saalum comme ni ma la ko waxee rek jamono boobu sëñ bi mi ngi ci wetu sëñ bu sóobe waaw ci foofu nga xam ne nag mooy Jolof ndax lépp ci ndigalul waajuram di sëñ Mamadou Anta Sall li la amee ginnaaw sëñ Mamadou Anta Sall moo ko joxoon tafsir Mbacké Ndoumbé gannaaw bi mu nelawee sëñ bu sóobe nag féetewoo ko ci di ko saytu di ko jàngal moo tax bi lii di am fekk na sëñ bi mi ngi ci wetu sëñ bu sóobe foofu ci dëkk foofu ci wet googu nga xam ne nag mooy jolof bi yàlla defee nag ñu ñëw ba agsi ci bi yàlla defee nag ñu ñëw ba agsi ci bërëb bi nga xam ne fii la euh, maami sëriñ bi nekkoon di maam la ñu koy wax ma siñ ci la maba nag diisoog maam la moom it ngir mu ànd ak moom dem dem dem fa nga xam ne mooy Saalum waaye maam Balla moom ginnaaw mag la ca boobu jamono wax nañu boobu mag la lool lool lool lool mënta dem moom waaye dafa jox ndigal doomam jiiti Maba Anta Sali ne ko kon man ngaa àndaaleeg Maba ak sëñ Bousso ba ngeen mën a dem fa nga xam ne mooy Saloum waaw ñu daal di dem yàlla defee ñu dem ba àgg Saloum nag moom Maba dafa toog ñooro comme ni ma ko waxee léegi ci ginnaaw foofu ñooro la installé def ko daal muy bërëb boo xam ne daal mooy bërëb mooy bërëb bi mu dëkk moom waaye nag sëñ bi ak ñi mu àndaloon di sëñ bu soobeek mag ñi doomi soxna yi mu mu mu mu wax leen daal ñu nekk foo xam ne xañ na du ko sori lool te foofu nag mooy poroxaan loolu nag lañ ci lañ ci jubloon ginnaaw ñoom ay doomi soxna dañuy jàng ka jàngale mooy seen métier moo tax duñ mën a nekk foo xam ne coow dafay bari riirum buur ak yu mel noonu moo tax ñoom ñoom ñu installé wu toog poroxaan moom Maba mu nekk Ñooro kon day mel ne lii nga xam ne moo wundu moo sabab nekk sëriñ bi ci Saalum ci foofu nga xam ne wax naa leen ko léegi mooy Poroxaan li ko gën a sabab mooy euh, mbir yu metti yooyu xam ne doomi soxna yi ñi ngi ko doon dund ca jamono comme ni ma la ko waxee waaw. ah nag ñu daal di ñëw foofu ànd ak ma ba pour gën a mën a aaru pour pour gën a mën a mucc ci yenn jafe jafe yi nga xam ne buur yi fi nekkoon doon ay caddu ñu ngi leen ko doon fexee kon loolu mooy sabab bu nekkuk sëriñ bi foofu ci poroxaan ci gox boobu nga xam ne mooy Saalum xam naa kon incha allah ñu yemele foofu euh, band bi ba yeneen yi ñëw ñu àggale ci des yàlla na yàlla defal dégg ak topp wasalaam yàlla na yàlla defal dégg سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني